alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashaabihi ajmain mbokk yi ñuy seetaan ci Mouslih TV ñu ngi nuyu ñépp di jéggalu ñépp di jéggal ñépp mbokk yi man oustaz Arfan Diouf ma dellu siwaat ak yeen ci programme yi nga xamante ne amoon nañ ko ak yéen te mu jëm ci mbirum sëy mbokk yi déglu kenn réerewul ne sey yàllaa ko yoonal ci alquran ak sunna ndax ñu mën a tabax ay famille famille yu am sutura famille bu am taraanga famille yu am ay valeur euh, mbokk yi mais dañoo nemmeeku ne sëyug tey bari na ay jafe-jafe lool moo xam niveau Sénégal fii li ñuy dégg ci rajo yi ak télévision yi ak li ñuy gis ci quartier yi ñuy dëkk problème mu sëy lu law la lu tas na ci réew mi te mbir moomu booy déglu journal journal adduna bi walla ngay jàng xibaaru adduna bi da gis ne problème mu sëy tamit am na ci adduna bi yépp ba tax na ci sunu émission yi dañuy dikk ak yéen waxtaan ak yéen joxe lenn ci problème yi nga xam ne mooy am ci néegu sëy waaye joxe ay solution waaye dinañ fexe waxtaan ak yéen ci ay technique yoo xamante ne ñaari woy dencante yi buñ ko gànnaayoo mën naa tuutil jafe-jafe yi nga xamante ne mën na am ci seen biir néegu sëy walla même jafe-jafe bu amee ci biir néegu sëy njàngat bi ñuy joxe ak ay données techniques yu ñuy joxe mën naa tax dañu ñu maîtriser problème mu sëy boobu ba mu mën a ba mu bañ a àgg ci fi nga xamante ne loolu mooy fase mbokk yi ñuy déglu ci Mouslih TV dañoo seetlu ne sëyug ndaw yi tey dafa bari lool li ci tas ñu delluwaat seetlu ne ci àdduna bi tey am na jigéen yoo xam ne dem nañu sax ba ñoo sëy ngir mitit yoo xamante ni du nañ ko ci biir néegu sëy waaye ci beneen fànn ba góor yoo xamante ne bëggatuñu denc ay soxna ndax ñenn ci ñoom bunduxatal yi leen bunduxatal ci néegu sëy ñu dem ba am yaakaar bu tas fas yéene dund li des ci seen dund sans ñu dugati soxna bon loolu jafe-jafe la mbokk yi dégg mbokk yi nga xam ne yéen yi seetaan ci Mously TV dafa am ay étude yoo xamante ne boroom xam-xam yi gëstu ci say ak ay jafe-jafeem dañ koo def ñu gis ne am na ay jigéen yu bari yoo xam ne seen diina def leen ñor ba ñuy dugg ci biir néegu sëy ñu tànn ay góor yoo xamante ne jàpp nañ ne góor yooyu seen diina ñor na leen mu mel ni dama bëgg wax ne am na ay jeunes yuy góorgóorlu ci diina mais am na ay xale yu jigéen yuy góor góorlu ci diina mu mel ni sax diina def leen boole ñu buggante ndax ku nekk diina ba nga gis ci sa morom waaye bu ñu bëri ci ñoom bu ñu duggee ci néegu sëy sëy boobu day mujjee ci ay jafe-jafe ba am na jigéen yoo xamante ne ci biir loolu ba ñu génnee ci sëy yooyu nga xam ne diina lan fa doon xencu daanaka keneen ku mel ni ñoom ci wàllu diina bu ñëwaatoon pour labat leen ñu ne leen doy na am na étude yoo xamante ne saxal nañu loolu ñaar ñuy dund diina bokk néegu sëy waaye sëy ba échec ku nekk am ci sa morom yaakaar bu tas ñu defaat beneen étude mooy koo xamante ne dafa doon dund diina nekk ko góor am soxna buy dund diina bu demee ba tas xale bu góor boobule bu takkee soxna soo xamante ne yitteewul diina daaw nañu gis généralement ci li gën a bari ñoom ñaar seen sëy day neex bon am na problème comme ni nga xamante ne xale bu jigéen bu doon seyal mbokkam ci wàllu diina mu am ca yaakaar bu tas bu amaatee beneen jëkkër boo xamante ne comme saaru boy disco yi seen sëy day neex bon am na problème bon problème am na bon problème am na kazalik mbokk yi dañoo gis ne tey jigéen yu bëri hmm, avant ñuy dugg ci néegu sëy courage bi ñu amoon yaakaar bi ñu amoon ginnaaw bi ñu duggoo ci néegu sëy même bu ñu tasul ñu bari ci ñoom seen yaakaar daa xaw a tas bu fekkee tasul bi jeex parce que nan doon jàppee néegu sëy ak ba ñu duggee ci biir néegu sëy lañu yaakaaroon ak la jàpp du benn mbokk yi ñuy déglu ñun comme ay jullit ñun comme ay senegale majorité bi nekk ay jullit gis nañu ne am na banditisme bu bëree bari boo xam mu ngi xew ci mbedd mi bokk na li koy waral mooy néegu sëy boo xamante ne normalut conséquence ya mujjee feeñi ca xale ya xale ya mujjee nekk ay délinquant wala ñu nekk ay tuxkatu yàmba wala ñu nekk ay agresseur moo tax bu ñu defaree néegu sëy lu bari ci société bi dafay dal di baax mbokk yi nga xam ne ñuy déglu waxoon naa ci émission bi passé ne dafa am ñetti xam-xam yoo xamante ne dañuy intervenir ci néegu sëy rawat na ci sun réew mi ba ca jiitu ñun comme ay jullit mooy matière boobu ñu tuddee al fiqh muy jurisprudence ci arab wala ci tubaab matière boobu tudd fiqh dafay jàngale ab sëy waaye borom xam-xam yi dañoo nemmeeku ne ku tënku te fikki kese ak règlement yi muy jàngale ku ci yem kese pour sa néegu sëy normal mun a am ay jafe-jafe lan moo tax ndax fiq def lay jàngal ay àq ak ay yelleef ay àq ak ay droit te néegu sëy ñaar ñiy dencante ku nekk bu buggee wax ne sama ak ak sama droit dina jafe lool néegu sëy boobu continuer nga ñëw ci luñ tuddee loi te moo di côté justice justice fii ci réew mi day intervenir ci wàllu sëy tey boo demee tribunal ay dossiers yu bari nga fay fekk yoo xamante ne problème mu sëy la ñooy dañoo gis ne ñun senegale sunu aada suñu cosaan képp koo xamante ne jël nga sa soxna yóbbu ko tribunal walla nga jël sa jëkkër yóbbu ko tribunal walla police dina jafe pour sëy boobu delluwaat ba baax ba mel ni na mu meloon bu njëkk lu tax parce que ñun sénégalais dañoo jàpp ne ku la yóbbu ci yoon rek mooy mënatu la nekk sa mbokk mënatu la nekk koo xamante ne da ngay am confiance ci moom ci biir loolu ci la boroom xam-xam yi gëstoo benn xam-xam bu tudd fiqhul usra muy xam-xam boo xamante ne la muy gëstu nekkul ay akk ak ay yelleef loolu baal na ko liñ tudde al fiqhul islaam yi mu jàngale ko mais ñëwul pour ate diggante soxna si ak jëkkëram pour wax ne kii moo nekk ci dëgg kee nekkul ci dëgg déedéet mais li ko tax a jóg mooy deuxième li nga xamante ne fiqhul usra dina ko jàngale mooy jàngal ku góor mooy borom kër gi jàngal soxna si ay technique yoo xamante ne sëy bi bu amee problème bu ñu utiliser technique yooyu seen problème mën nañ ko amal solution te fitna du fa am comme ni nga xam ne fikkul usra dinañu jàngal dina jàngal góor ban jigéen la mën a seyal ak ban jigéen mooy jigéen ba mënut a sey ak moom jàngal jigéen ban jigéen ban góor la mën a seyali ak ban góor mooy góor bi nga xamante ne mënut a sey ak moom parce que buñ sey ci problème la ñuy mujjee bon ci xam-xam boobu la ñu ñëw pour waxtaan ak yéen xam-xam boobu tudd fiqul usra mbokk yi ñuy déglu tuuy mbokk yi ñuy déglu ci Mouslih TV dafay wax ne jigéen yi juróom lañu waaye jëkkër yi juróom lañu tey boo xooloon société sénégalaise nga def ko benn étude bi may wax si da ngay gis ne senegal yépp juróomi juróomi jëkkër ñoo fi am waaye Sénégal yépp juróomi soxna ñoo fi am groupe bu njëkk bi bu fekkee dañ leen tuddee groupe A ci xam-xamu fiqul usra ñu leen tuddee majmuatu as-sulahfaat mooy groupe boo xamante ne ñu ngi leen di symboliser liñ tuddee mbonaat mbonaat benn rab la boo xamante ne day dund ci ndox dafa am qualité yoo xamante ne buñ ko gisee ci góor walla ñu gis ko ci jigéen dañ leen di classé ci groupe A symb muy symboliser groupe mbonaat am na solo li tax mu am solo mooy jigéen dafa war a xam jëkkër bu muy seyal mooy kan waaye góor dafa war a xam soxna bi muy seyal mooy kan jërëjëf kan mooy mbonaat ban jëkkër mooy la ñuy symboliser mbonaat mbonaat li ñu njëkk a séentu ci moom mooy benn animal la boo xamante ne dafa bari jàmm ban jëkkër boo xam ne mbonaat la mooy jëkkër boo xam ne buggul ci ay dara buggul ci xuloo dara buggul ci fitna dara li mu xam daal mooy ay li mu xam daal mooy jàmm ak salaam xool leen mbonaat kañ lañu mos a dégg ne kaa leen jàpp mbonaat ca ñu ngay xeex musuta am parce que ni leen yàlla bindee naturellement mbonaat rab la boo xamante ne rab bu bari jàmm la bon am na soxna yoo xam ne jàmm rek lañu xam am na ay góor yoo xam ne jàmm rek la ñu xam moom lañuy xalaat moom lañuy ñuy moom lañuy dox xamuñu ci ay dara mooy mu saalima waaw soxna soo xamante ne mu saalima kan moo ko war a denc waaye jëkkër boo xamante ne dafa bari jàmm comme bonaat kan moo ko war a seyal mooy ku mel ni moom ku bëgg jàmm ni moom parce que lu tax nit koo xam ne jàmm rek la bëgg boo ko indee ab pànk boo xamante ne kaay ñu reyante moo ko gënal kaay ñu lekk kaay ñu xeex ci lay gën a moo ko gën a ci lay gën sawar ne kaay ñu bokk jàmm bu xëyee suba teel balaa muy am jàmm xuloog ñépp balaa ñuy teg booloo añ mu xeex ak ñépp balaa ñu egg ci timis mu meroo ak ñépp jëkkër bu mel noonu bu fekkente ne ki muy seyal mbonaat la bu boobaat ñaari nature yooyu mënuñoo ànd sey ci benn néeg li may wax ni ay nature la bon nit ku bari jàmm ki ko mun a seyal mooy ku bari jàmm ku mel ni moom pour ñu mën a composé wu jërëjëf ñaareelu qualité bi mooy xam ngeen ne mbonaat ci ndox lay dund lépp luy dox lépp luy dund ci ndox rek day symboliser ab set dafa set bon am na sa soxna soo xamante ne dafa set wet nin ko yare seen kër difi ba mu nekkee xale ba ba mu nekkee élève ba ba muy nekk collège ba noonu muy ñëw di la seyal si dafa nekk nit koo xam ne daa set wecc yaram du tilim dallam du tilim néegam du tilim lépp may set lépp may rafet lépp a lit te am na tamit ay góor yu mel noonu sa jëkkër bu amee qualité boobu wala sa soxna am qualité boobu kan moo ko war a seyal mooy jigéen bu set boo xamante ne setu jigéen bi dana tolloog setu ko góor ki walla mu sut ko jërë ngeen jëf ñu ngi yem ak yéen ci kàddu yooyu waaye incha allah ñu ngi ñëw pour jekkale ko